man moom sama position du varier. Mhm. sama position moom mooy yàlla bu la dénkee nguur dangay xam ne nguur gi dafa jóge ci ay loxo ñëw say loxo parce que euh, nguur gi fi nekk nii li ñuy lebal nit ñi baaxul li ñuy lebal nit ñi nii globalement dara baaxu ci. baaru bu ñu leen fay prison non <laughs> prison weñ ay loxo e-, e-, exclure ay candidats te nguur gi dañ dañ ci ay loxo xamoo loxo yooyu bu ñëwee lan lay def. te mënoo fexe fexe ba éterniser wu ci nguur gi donc man li ma leen di appelé moom mooy dëgg ak justice mooy indi jàmm ñun xam nañ li xew Sénégal ba ngeen di wax ay manifestation ay lakk ay oto yooyu xam nañ fa mu déparé ci ay tappale la ak ay procès yoo xam ne ñoom xamoon nañ ne loolu day indi yooyu donc nañ jël dëgg ak justice jiital ko nguur Serigne Cheikh Ahmadou Tidiane Sy Al Maktoum daf ne légitimité mooy indi jàmm bu ñu sangul réew mi ak légitimité deret yi ak manifestation daf fiy continuer te tey jii dem bu ma gisee ay nit toog naan ay un million de signature pour candidature bàyyi sàtt réew mi bàyyi loi yi nan dellu ci dëgg bi ak li nit ñi d'accordoon loolu mooy tax dëkk bi mën a am jàmm man commentaire bi may def moom mooy boo gisee par exemple njagal li mu wax ci affaire grâce bi mais benn nit mën na ñëw ci am parce que moom inter intervalle de temps boobu moom moo yor nguur rek mu jël dëkk bi régenté ko ba mu dem ba àgg foofu nga xam ne man maay buur maay bummi mais ëllëg ki lay wuutu te par force dina la wuutu même bu ma waxee ne da ngaa amal mandat cinq mais ki lay wuutu mais da nga koy calculer. c'est important c'est très important. Mm. parce que leen leble baaxul man li may dama leen di wax man samay xarit lañ waa APR dama naan yéen li ngeen leble dafa bëri. da ngeen a leble prison leble ay weñ loxo nit ci ay candidature leble ay dóor ay nit leble ay injustice leble ay jeng mais loolu baaxul parce que man jullit laa alxuraan laay jàng man alxuraan mooy sama logiciel su ma gisee nit ñi taxaw yeen taxawaay yi dama naa leen ngeen di xaru parce li ngeen di def nii tôt ou tard danañ leen ko voilà donc loolu baaxul man pour man nañ dellu seen xel te jéem a li nit ñi tëral ci biir réew mi jéem a respecté nit ñi ñoom li ñu def ba ñëw ci nguur nañ bàyyi ñeneen nguur gi dem ci beneen loxo ci condition yooyu sinon day indi problème